Canada bokk na ci réew yi doomu sénégalais yi taamu ngir dem ma di fa daan seen doole jamono ji ñu toll mbas mi sonal bépp doomu aadama rawatina ñi nga xamante ni ñoo fare ca bitim réew Moussa Balla Fofana di ancien président du conseil d'administration du regroupement général des sénégalais du Canada dikk ak ñun ci seenub dundin. alors man Moussa Balla Fofana laa tuddu maa ngi nekk ci diaspora bi depuis dix huit ans maintenant euh, dix ans fii ci Canada ma nekk fi banquier euh, plus précisément. directeur financement des entreprises euh, ci lay liggéey nekkoon fi nag ancien PCA président du conseil d'administration du regroupement général de des Sénégalais du Canada pour ñëw rek ci condition de travail yi nga xamante ne nii am na service yu bëri yoo xam ne tëj nañ ko lépp lu nga xam ne maanaam mooy télétravail mooy xarala yu bees yi ñu mën a liggéey euh, sans ñu gisante toog sa kër loolu tey jii moo nekk li nga xam ne entreprise yi nga xam ne may nañ leen ñu liggéey ci ci pandémie ñoom loolu la ñuy jëfandikoo euh, man fi ma nekk sax loolu la ñuy def ci jamono jii pour mën a continuer véritablement di liggéey ni concernant euh, ressortissants sénégalais yi fi nekk euh, comme ni ñu ko xamee Canada dafa nekk réew mu nga xam ne dafa def une immigration très sélective très choisie immigration boobu tax na ñi fi nekk ñëpp daanaka dañu am kayit majorité bi et puis l'écrasante majorité je pourrais même dire quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf dañu am kayit ba noppi seen insertion professionnelle lekk nekk lu yomb et puis parallèlement gouvernement bi ci biir jafe-jafe bi ci bi mu ñëwee ci réew mi amul kenn ko nga xam ne rek bàyyi nañ ko c'est-à-dire ki nga xam ne sax moom mooy liggéeyal boppam sax am na luñ koy jox weer wu ne bu fekkente ne munta liggéey dool dolli euh, ki nga xamante ne nii dafa am ay salaire mais mu mu ñàkk liggéeyam wala entreprise bépp entreprise rek bu dee fay nga sa ay salaire da ngay fay rek am na luñ lay jox plus nag euh, dispositif investissement Québec euh, banque de développement Québec nga xam ne ñoom ñëpp dañuy fexe ba benn entreprise du loru ci jafe-jafe bi ci Covid bi donc loolu mooy li nga xamante ne nii moom moo fi am ci ndimbal li gouvernement bi bi jagleel ci ñi fare ca bitim réew Moussa Balla Fofana mu ngi xamle ni ña fare ca États-Unis ñoom ñoo ko gën a soxla jamono ji ba ca des aussi nag mooy ndimbal li nga xamante ne nii yaakaar naa ne fii ci Amérique du Nord bu ñu weesoo Canada waa États-Unis véritablement ñoo koy gën a soxla ndax ñoom bëri na fa suñu mbokk yu nga xam ne ñoom euh, dañuy taaba taaba dañuy liggéey ci marché yi donc ñooñu amuñu kayit sax ñooñu tey ji ñoo gën a soxla véritablement ndimbal li gaa fii am na yu ko war a mën a soxla loolu mooy jàngat li ci situation bi nga xamante ne nii moo am Amérique du Nord euh, di leen remercier aussi ci opportunité bii ngeen ñu jox pour ñu wax ak sunu waa askan ci naka la ñuy dundee fii donc un résumé véritablement euh, dundin goo xamante ne nii ñu ngi respecté euh, véritablement directive yi nga xam ne joxe nañ ko ñi nga xam ne dañu am kayit yëpp dañuy dugg. ci dispositif bi réew mi nga xam ne tëral nañ ko ngir jàppale képp ku nga xam ne feebar bi dal na la ñi nga xamante ne nag amuñu kayit ñi nga xamante ne nii mënuñu jëfandikoo ci loolu yaakaar naa ne ñooñu tey ñooñu la sunu autorités yi war a gën a mën a taxaw. ca la mu jeexalee moom Moussa Balla mu ngi xamle ni rek gouvernement bi war na xoolaat bu baax a baax yenn ndogal yi nga xamante ni jël na ko jëm ci wàllum rapatriement corps yi. alors euh, li nga xamante ne ni nag véritablement ñu ngi koy dund euh, en dehors de liñ fi wax yëpp. mu nekk jafe-jafe mooy ni nu gisee ne gouvernement décision administrative yi ñu jël daal di tere ne ki bépp néewu sénégalais bu nga xam ne dafa génn àdduna jamono yii ci Covid bi duñ ko bàyyi mu dugg Sénégal décision bu nga xamante ne ni tey firnde bi leer na ni teguñ ko ci benn xam-xamu scientifique parce que tey ay médecins sénégalais wane nañu ne loolu teguñ ko ci dëgg te fii ñun ñi nga xam ne yàlla def na ne ñun ñoo fi nekkal communauté yi généralement muy France États-Unis Canada fépp parce que collectif collectif bi dafa jax dafa boole réew ka réewu ci nekk ci diaspora bi yëpp. autorités yi ñu ngi jébbal néew yi ci commune communauté yi ñun ñoo fi nekk di suul koor yi par exemple États-Unis moo ñu war suñu digganteeg ñi nga xam ne bàyyikoo nañ donc tey communauté yi ñu ngi jot koor yi ndax dañ koy sécuriser dañ koy def véritablement nettoyage au javel def ko ci sac hermétique def ko fermer ko ba noppi def ko ci ci cercueil bu nga xamante ne ni buñ ko xasee tëj kenn dootu ko mën a ubbi donc cercueil bu ñu mën a jëlee ci pompe funèbre yi daal di koy yóbbu ca fii suul ko fi te fii boo fayul at mu ne néew boobu mën nañ ko sulli daal di koy lakk alors que ne tey buñ ko acheminé woon acheminé woon yóbbu ko Sénégal suul ko ci ni ci ni mu gën a ci ni mu muccee ayib nga xam ne bu yegsee duñ ko sax ubbi dañ koy jullee rek daal di koy euh, jébbal boroomam fexe ba deux trois membres famille fekke ko xam ne fii la seen mbokk mi tëdd yaakaar naa ne loolu sénégalais de la diaspora mérité nañ mu nekk décision bu doy waar boo xamante ne nii ñu ngi ci góorgóorlu ba léegi pour am ne nos dirigeants pour leur faire comprendre décision bi ñu jëloon au tout début de la pandémie décision la bu nga xam ne nii tey tegootul ci xam-xam ci dëgg doon xam-xam am dëgg rek je pense que France Italie Espagne Canada États-Unis du ñu jël ay néew yu nga xamante ne ni ay néewu Covid 19 traité ko ba noppi daal di koy jébbal famille yi ngir ñu mën a def li nga xamante ne ni moom mooy ci war donc loolu bu ñu ko ay suñu dëkk yi ñu accueillir defalee yaakaar naa suñu propre réew war na mën a jël responsabilité am encadrer organiser exiger. benn protocole pour corps bi mën a yegg si aéroport te bu yegg si aéroport ñu exiger aussi benn protocole nan lañ koy suulee ba du andi du andi benn jafe-jafe yaakaar naa ku mën a jël nit ku feebar biir Sénégal dugal ko ci avion yóbbu ko France war nga mën a nangu ay cercueil hermétiquement fermé traité et protégé war a ñëw ngir ñu defal li nga xamante ne nii képp ku génn àdduna rek ñaan nga yàlla ñu ñu daal di lay yóbbu ci say wetu mbokk ngir au moins sa waa famille xam ne ah kooku nga xam ne tey jóge woon na fi muy yaay boobu muy baay boobu muy doom boobu tey yàlla an andiwaat na ko au moins ñu mën a def seen dëy ndax il y benn dinañu weesu lii yëpp boobaa bëgg nañ kenn ku nekk war a mën a dund dundam yaakaar naa war na noo mën a jàppale famille yi ci loolu noonu ma leen di gërëm di leen sant ci seen invitation ma leen di gërëm véritablement